صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق réseau de Gaza réseau de Gaza voilà donc ñun ñi ngeen di def mooy SONAGED ñoom suñ ko mënoon dimbale parce que transport yi moo nekk pare ñoom ñooy gros œuvre ñoom ñooy pare suñu mën a dimbale ko ñu nettoyé ko même su fekkee à partir du nawet ba ba ñëw la mairie bi ñu ci biir pour installation conteneur yi nga xam ne ñu ngi jóge la yaa ci ñëw suñ ñëwee fekk nettoyé comme ça mën a commencé installé ci biir quelques jours boobu le 14 septembre ak boole des plan de circulation bi donc lu gën a yombal donc liggéey bi jour boobu donc au niveau de la CNG di doon monsieur Sall di ma attaqué normalement pour le lool mais dama ko wax monsieur Sall dama ko woo je loge plus de 400 immeuble yooyu ñoo ko defar pour gën a mel pour gën a dalal ay nit pour loolu rek donc loolu moo moo doon koy waral consommation bi ci yoon ngeen gis saafara ba defar ñu benn kàddu bu moom su tawee mais apparemment ñàkkoon na ko ngeen ngeen delluwaat ay donc les deux mots moo donc foofu aussi ñu soog a séddale jàppale ci bu baax ci doyen chien quoi du courage c' est vrai que lu nit nit mu xaalis lépp daal moom mënu ko couvrir waaw moo tax ñu mën yooyu ci ngeen am solo pour que véritablement en temps ñu mën a yi sac. donc nit ñi fay nekk day bëri donc disposition yi mën na jël la ci gàmm dañuy ñaan aussi ñu jël ko le 14 pour que euh, ñu mën cee euh, ñu mën a def délégation bi mën ci béy booy mi ngi sama teel wax nañ ko si les citoyens waxal nañu ko ba pare couverture média bi aussi am nañ ñett yoo xam ne ñu commencé jàllale ay bande annonce pour inauguration bi. le débat de la DSTV ñu ngi bàyyi ñëw na RTS ak ñeneen ñi nga xam ne nii war nañu mën a jàllale bande annonce pour que communication bi jàll aussi ñu jàllale ñu ko au niveau pour le moment am nañu ñaari télé yi d'accord pour defal ko direct jour libération bi mooy 2STV ak Walfadjri kon ñu ngi ñaan ñi ci des aussi ñu mun ñu ko couvrir en direct Donc, monsieur le gouverneur, c'est tout ñëwee ak yéen di wax ne ñun ak COPACEL benn la ñoo euh, bokk organisation bi te luñ ci def rek ñun luñ def rek COPACEL lañ ko def lu COPACEL lañ ko def donc on est ensemble mais dañoo tenir loolu la préciser ces différents problèmes au niveau sécuritaire ak euh, au niveau national ak Sonatel pour que euh,

لا إله غير الله لا إله غير الله نوره أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأنجال بعين لم يصل نوره بعين إلهي بانتقال في الكون بعد انتقال ثم حدا هلا ليا وتجلى نوره في العبد الإله العالي بعين عاصقته نساء يبتلن أموالا له من أجل الباع والجمال قال أما الحرام فالموت دون في كلام يقوله ذو الكمال قد حفى الله عليك صلاة الله ثم السلام فطرها